dina sedd ndax maa ngi fàttaliku guddi gu ñu àndee woon ba dal kër soxna Ndeylo. du ma ko fàtte Abdourahman vraiment mu di ñu dénk. Mhm. xamee itam ne ñun ñaar suñu ànd neex na ko ndax nee na man sama jikko daf ko neex. Mhm. kon xëy na soppeeku bu amoon ñun ñaar duñu ànd ndax nit ku ne la nga nàmp moom ngay euh, toqamti ko. Mhm. te xay na yow li nga nàmp ci sa waajur mooy dëggu ak euh, itam ak nekk ci euh, dëgg. ak nekk ci loo xam ne lu wóor lay doon. kon su fekkoon ne loolu xëy na euh, nekkatul ci ñun kon xëy na doo ànd ak ñun kon ñu ngi lay ziar baax di ziar mboolem euh, ñi ñuy déglu ci dëkk bi di ko njëkke ci euh, xalif bi di ko ñaanal mu yàgg loolu te wér ku tardé ci xëy nag da ngay farlu cim gontu waaw ndax xëy na tardé nañ ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci tardement boobu am te sabab sabab luwuñ ko ndax ñàkk déggoo la ci ay kàddu hmm. waaye xëy na njuumtale ci man la ne kon maa ngi ciy jégg lu baax di fas yéene itam siq ak yéen ci waxtaan wi nga xam ne ñu ngi ko bëgg a ak nun ak ñi ci biti kon mi ngoog ndeysaan ñu ni neen daa amatul nun nu kii ñun ak yéen xaw ma waaw nun ak yéen day amatul hmm. xëy na jombul dina ñëw comme ñun ñoo ko kere woon hmm. jombul xëy na dinañ ko def feneen wala ñu def nga suñu émission bu nga invité woon mooy li ma la rek gis nga euh, déggoo hmm. dafa baax ci mbir émission boobu benn la fi te dootu fi amati ndeysaan sama góor gi euh, euh, moo tax gis nga Sénégal mm-hmm. am nañu ay jàmbaar yoo xam ne seeni mbir seeni wax lu mu yàgg-yàgg day des tiix mm-hmm. émission boobu ba léegi téex la lu fi des loo xam ne mm-hmm. soo demee da nga ko fa fekk émission boobu da ko koo neexoon ba bi mu faatoo kale USB bi nga xam ne mille giga la boobu mu ngi ci biir Mame Baye Fall waaw émission boobu wolof rek lañ doon waxtaanee. Mm-hmm. Mm-hmm. yéen ñaar. waaw ndeysaan rek. ah di la ñaanal rek suñu borom guddal sa fan guddal suñu fan ak mboolem ñi ñuy déglu ñëpp. Mm-hmm. ndax nit ki dafa war di nab nabi ci lu baax. te bañ a am complexe ñun dañu am suñu mbatit. mooy suñu aada ak suñu cosaan comme ni ñu koy déggee. dañu ko am te waruñu am complexe ba tax. ñu koy euh, bàyyi parce que Molière da daan wax naan. Mm. nit ki soo demee ba di ko toppandoo danaan damay ñandoo ni muy ñandoo wala damay xaxtandikoo ni muy xaxtandikoo tax xay na bokk leen bakkan mm. dafa ngoog. kon ñun li ñu am. Mm. ak li ñu ne bu buñ ko xeeb ndax moo ñuy defaral tey te moo ñu defaral ëllëg. Mm-hmm. fi mu toll nii tey soo bëggee jàng lu bari ci yoonu sëñ Bàmba xam nga sëñ Tuubaa bind na ay arab mm-hmm. sëñ Moussa Ka ñëw bind ay wolofal. Mm-hmm. nga ñëw jël wala fal yi dem jël wala falu sëñ bay jaxate nga xam ne yow mi toog yaw borom kër gi yaw mi yor sa kër mm-hmm. toog ngay déglu sañ bay jaxate mu lay yar di yar sa njaboot mm-hmm. kon bu ñu fàtte li ñu am bu ñu ko bàyyi noonu itam na suñu mag ñii ñuy waxtaane ku mel ne tay bay Fallou mm-hmm. ku mel ne tey Matar Seck Mboro ak ku mel ne maam Yaxi Laalo ñu mel noonu dañ leen war di bàyyi xel surtout ñun ñi nga xam ne dañ ne dañoo kokk mooy ñun xale yi nga xam ne mhm. xëy na dañuy fréquenter ay mag di toog ak ñoom mhm. parce que man bañ naa ko ba xaritu mag laa ëppale ci lu ma am ci xaritu ndaw kon nañu nañu nañu bàyyi xel ne waruñu bàyyi li ñu moom mhm. tey nag wax dëgg yàlla su fekkee ne da nga ne yow euh, da nga dafa tàng nga ne fii daal tubaab laay roy damay sol ko costume bu yàggee léegi nga mel ne <laughs> kon mi ngoog genn wàllu tubaab genn wàllu nit ku ñuul un tiers waaw su ko defee doo mat nit day fexe mat li mu doon mm-hmm. da koy dégg nit day mat li mu doon loolu nag du ci yamut ci wax rek daa war a yegg ba ca jëf ja kon tey ñi ngi fas yéene waxtaanee Ibrahima njaay maam yeexi laaloo Modou Diop Thiat sëñ Ibrahima njaay nag lu gàtt rek laay seere ci moom suñu mujj luñ mujj a jokkoo maak moom du ma wax lépp nag waaye dinaa ci mosle tuuti rek mm-hmm. waaj naa nag dem seeti ji ko ba ni mu wuy jë li may wax nii it am na kook seede la ci su may déggee dina xam ne bu yàggut waxtaan nañ ci mm-hmm. ma ne ko dama bëgg wut émission boo xam ne dama ci ànd ak moom musaguma ko waxuma ko woon nag sëñ Ibrahima Ndiaye mm-hmm. waaye am na kook su dee mi ngi déglu rajo bi ci rajo lay liggéey maa ngi moom waxtaan nañ ci mm-hmm. yàlla xam na ko ci lu ci lu matagul fukki fan ak juróom ma ne ko xam-xam bi mu yor damaa bëgg a wut émission boo xam ne dañ koy ànd mu ko cay sotti dama def émission Walfadjri kase ma bu invité ma. Mhm. te li ma waxit sama wajur sëñ Fallou Cissé ma ko nettali. Mhm. moo wax moo wax na ko Mouhamed wax na ma ko. Mhm. ba mu koy wax Mouhamed bi seede laa Mouhamed ñëw kër ga di jël si olofal RFM mu ne ko lal bii de sa wuy jur toog na fi di ma enregistré yi baati wolof sax di laa ay lépp ma koy toggal laax Ibrahima njaay maam yeexi laalo mhm. ba muy dekk sama jur sëñ Fallou si sa micro booba sëñ Fallou nekkagul rajo mhm. waaye sëñ Fallou booba li yàlla di def ci moom def na ko ci moom xam-xam baa ngi ci moom booba amagul nag fu mu ko sotti waaye xoolal sëñ Ibrahima Ndiaye ca yéwén ga da daan jógee fa mu ne dem ba jàmm gën booba sama wëju sëñ Fallou Cissé tailleur la woon mu ko mm. fay fekk di ko enregistré mu koy mu koy waxal ay lépp di ko jox ay lépp loolu nag laa netti li ca rajo ba mm-hmm. waaj a déglu ko li la léeg-léeg li ngay li lay wan ne auditeurs yi léeg-léeg am na ci ñooñ dañuy jaxase mm-hmm. am na ci ñuy defar waaye am na ci ñuy jaxase wala am na ci ñooñ dañuy dégg wax wala ñu dégg catal wax ja dem yegee ko kooka waaye alhamdulilahi rabbil alamin ba nga xamee ne man li ma wax xam naa ko kooko xëy woo ko ne ko yow a ah, xaw ma daa dajeeg moom wala da ko woo daal lu ci mën a am daal wax na ko ko na ko kon yow nekk sa léeb yi nga doon yor sëñ Fallou Cissé la ko jox xam ko toll ni Ibrahima Ndiaye soo ñëwee ne ko sa xam-xam bi nga yor sëñ Fallou la ko jox te loolu demeewut noona mu woo ma ci loolu en tant que may doomam. Hmm. waaye li ma ko jàppee mooy su ko neexoon ba ko koo ko waxee loolu comme dégluwut émission bi da koy téye. Hmm. fu mu ma gis ni ma ko xoolee. Hmm. waaye gis nga ko la muy doon doon kilifa doon doon mag. daa jël téléphone am woo ma suba teel ñaari appel fekk may nelaw yeewoogu ma. bi ma yeewoo ma xool numéro bi ma woo ko. waxtaan nañ keroog pendant trente et quelques minutes. maak moom. mu ne ma dama ginnaaw bu ma jaalee donte ne nag bi sëñ Fallou nelawee yooyu déggante ci boobu lañ amee occasion déggante mu jaale ma nu waxtaan moo ne ma damaa dégg nangam ak nangam. Hmm. ma ne ko li nga dégg lu xeetoog wax ji la waaye ni la ko waxee baaxut. Hmm. gis nga ko ne ko lii ak lii laa wax te sama waajur ma ko nettali ndax am na wala amut mu ne ma waaw bu dee lii nga wax de noonu la demee. Hmm. waaye la kële wax amut ma ne ko kooku li mu wax moom la engagé ñu déggoo ci loolu. <laughs> ñu daal di déggoo ci loolu ma moom. lam ma tegal moo yow sama doom nga. moom ko wax de. dëgg rek. daal di ne ma del ñëw sama kër ñuy waxtaan. Mhm. ndax léeg-léeg ma dégg la ci rajo bi. galan bii ngay dóor de incha allahu soo ko wàccut. Mhm. mën nañ laa dégg fu kawe. Mhm. ba noppi it ci laa ne ko sa kër ga nekk daaru fële nu mu tuddee boori kër seex Béthio daanaa fa ñëw mu ne ma toxu naa léegi maa ngi daaru tanzil ci ginnaaw kaas bi. ma ne ko fan yii fan yu néew bu ma féexee danaa fi yegg si. lii lañ mujj a waxante ma ak lii. kon nag mi mhm. nit ku dëggu woon ndax dëggoom weesuwul gis nga ko du dëgg ci dëgg ngir dëgg bañ a feeñ. bu ko neexoon mu dëgg ci fu ma gis di ma ko xoolee. Mhm. waaye defu ko daf maa yamale comme doomam Mouhamed ndax Mouhamed bu defoon du yoon dana dana ko woone ko li nga def du yoon Amadou. loolu kon nag yamale maag doomam Mouhamed Mouhamed Ndiaye démb jokkoon nañu maag moom. Mhm. ma jaale ko nu waxtaan mu ne ma maagee woon noo bokk bàyyi. ndax bàyyi sama wajur sëñ Fallou Baye Fallou Cissé la ko Mouhamed daan wax sama doom la ko daan wax. maam yeexi laalo sama doom la ma daan wax. te ñun ñoom ñëpp ñoo bokkoon ci lu ñuy yëngu muy wolof. Mhm. ak mbatid mhm. muy suñu culture. moo tax kon mu ne ma maag yow bokk baay. waaye nag mu doon koo xam ne ci moom Mouhamed ci ni mu waxee dawal na tawhid ndax la ma njëkk a wax mooy nattal mbir mi ci sa bopp la ma wax. mu ne ma bu yàggul rek. lañ la lañ tàggee sa waajur mm-hmm. sunu waajur mm-hmm. te moo gën a mettile moo gën a bette moo gën a mettile moo gën a bette moom Mouhamed Ndiaye moo wax ma loolu waaw daal dina ma nag mm-hmm. sa waajur sa baay Fallou Cissé jàngal na ma lu bari lu ma jàngale waaye jàngal na ma loo xam ne jàngaleeguma ko mi ci sama dënn moo ma ko wax kon moo du looy ñuy wax ci maam Ibrahima Ndiaye maam Yaxi Laalo. moo la jàngal aar. dëgg la waaye ubbikatu bopp la woon. Mhm. moom Ibrahima Ndiaye maam Yaxi Laalo ubbikatu bopp la woon. Mhm. bopp yu bari fii tey moo leen ubbi. Mhm. Modou Diop caat mii ci la bokk. ñu lay déglu. Euh, jërëjëf Arona comme ni nga ko waxee rek li la ci dal man moo ma si dal mooy koo xam ne dafa mel ne da doon tàggatoo ndax man woo na ma sax këram. fekk booba maa ngi ci ay xat-xat ma ne ko su ma jógee ci yii dinaa fa ñëw. ba naan man li ngeen yorkat yow maa ngi lay déglu li ngay def baax na waaye li ngeen yor moo mel noo xam ne nii jar na ngeen di jege mag te maam yaxi laalo du wolof rek la man yàlla may na ko xam-xam boo xam ne euh, kiimaan la ndax day ñaan kon mu nekk loo xam ne euh, lu doy waar la ci mag ñu mel nii di dem ku mel ne tey comme noonu ma ko limee woon ci commencement bi ku mel ne baay Fallou Cissé ku mel ne ay Maxtaar Seck Mbora ak euh, euh, maam Yaxi ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xëy na dégguñu leen te ña toog fañ toog euh, dafa dafa dafa jar ñun ñu tiit ñun ñi nga xam ay ndaw lañ te war a roy. Mm-hmm. su ma waxee loolu nag am na ay kilifa diine yu dem. Mm-hmm. waaye anam bu ne ak na mu toll. Mm-hmm. kilifa diine yi metti na lool. waaye itam borom xam-xam yi dem tam métti na lool kon réew mi moo toll foo xam ne tiit dafa jot. Mm-hmm. Euh, comme ni nga ko waxee aaroon na bala ñuy guddal maam yaxi laalu man lu ma xam ci aar moom ma ko xamal. dañ doon def euh, benn film bu ñu tuddee Fori Tànk ñu ko doon def yaakaar naa deux mille deux mille seize la deux mille la man ak euh, kilifa yu bari yu nekk ci diwaan bi ay ñoom Pape Saye rek ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi fi. ku ñu wax Babacar Ndiaye moom moo ko doon réaliser muy doomam. yàlla dogal mu nekk film boo xam ne buy jàngale la. comme li ma waxoon démb bi ma bi benn rajo invité ma ne ñun ñun ñi nga xam ne ay bindkat lañ. wala ñun ñi nga xam ne dañuy def luy des ëllëg war nañuy sóoraale sunu njaboot. ñun ñi ngi koy defloo ñun ñi nga xam ne ñoo koy defloo nit ñoo naan aaroona jouer rôle bi wala diw defal rôle bi war nañu sóoraale ne kii dafa amul njaboot. Mhm. te it lim fi def luy des ëllëg la. ci ak njaboot ndax boo xoolee maam yaa ngi xalaat ñun liñ ci xam. Mhm. daanaka lu mat juróom-ñett fukki at yoo xam ne wala euh, bu ko manqué tam xay na. dund na ko ci wàllu aar wala def na ko def na rajo parce que rajo rek euh, RTS rek mas nañu waxtaan mu ne def na fa daanaka ay at yu bëri. Mhm. ñëw def fii ak euh, lim def Touba ak diisoo boo xoolee ci internet bi mosoo gis wala nga xool ci comme comme internet mooy def buzz. Mm-hmm. mosoo gis ñu ne moo def loo nit rôle bii nga xam ne ñàkk na kersa. wala def na euh, loo xam ne ñàkk na teggin. Mm-hmm. wala lii jàngalewut wala yarewut tey tey boo xoolee tey fi mu doon euh, jàngalee tey maa ngi doon déglu benn wax boo xam ne man dafa ma ko waxoon mu woo ma ñuy waxtaan mu ne nit ki yenn saa yi mu dugg ci mbir suñ borom yombal ko yenn saa yi ñu naan diw mii li mu xam fu mu ko jàngee wala fu mu ko jëlee te fekk loolu liggéeyu ndeyam kon yàgg naa jàngale ci ne nit jigéen buy sëy mhm. war naa mën a góorlu ndax li nga xam ne mooy dimbali ak njabootam mhm. moom moo koy liggéey ci këram mhm. loo xam ne dana tax ba doomam su amee gàllaaj gi da koy gàlloo ngir cosaan la waaye liggéeyu ndeyam bi nga xam ne moom moom la def ci kër baayam moom moo koy sauvé ba ëllëg yoon wu mu jaar. Hmm. dinañ xam ne diw mii lii moo tax. mu kon euh, bu ñu xoolee tey am na benn euh, léeb bu mu boo xam ne mu ngi ko tuddee euh, Modou Massina mu xam ne foofu da ciy jàngee da ciy jàngale ak njàmbaar. Hmm. ci nit ki nan lay mën a def ba nekk jàmbaar waaye nan lay mën a def ba nekk bañkat te moom Modou Massina boobu histoire la boo xam ne tey. yow soo koy déglu tey soo ko donte ñu bari nettaliwaat nañ ko soo koy déglu tey dafa am lu mu lay jàngal lu bari loo xam ne dangay ngay xam ne kii ban ban ban nit la kii bu doon tey France la nekk wala yeneen dëkk yi. ñun ñun ñun ñun ñi nga xam ñoo nekk Sénégal parce que comme ni ñu waxee ci début bi suñu complexe àgg na ci ba dañuy jëli ay livre am te pourtant ñu ngi wax ay ay ay. ay Molière rek ay euh, ñeneen ñoo xam ne dañu bind ak ñeneen ñeen ñoo xam ay bindkat lañ. Euh, tey boo xoolee littérature bi dañ la koy jàngal nga xam ne tey tey ku mel ne maam Yaxlaalo nga xam ne ñooñ suñu daan bind. ñoom suñ daan wax dañ daan yor këyit mais ku mel ne maam Yaxlaalo nga xam ne amut benn lépp boo xam daana ko def bàjjo. Mhm. benn ndeyam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko daan def da daan toog du yor këyit. Mhm. te li ma ci gën a motiver mooy ñun. Euh, yaram yar bi bi mu andi woon euh, sëñ Massamba moom moo garaaw ndax da daan toog. surtout loolu concept la boo xam ne suñu naataango Touba Média yi ñoo koy defoon mu nekk lu am solo da daan toog xale yi wër ko. muy wax ak ñoom. waaye xale yi mi ngi wax ak xale yi. waaye mi ngi wax ak ñi ci bitti. ñi ci kër yi ndax. waaw kay mi ngi wax ak ñi ci kër yi. mais mi ngi wax ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo toog di déglu. nga déglu lépp yi muy def. doo ci dégg benn boo xam ne. wala lenn loo xam ne nii dina tax nit ki. ñàkk a fonk waajuram wala nit ki ñàkk bàyyi xel ëllëgam wala nit ki ñàkk fonk këram wala nit ki ñàkk dëgg surtout li xew ci jamono ji nga xam ne nit ñaare lu mu la wax rek boo xoolee dina am leneen loo xam ne day mel ne daal wax mu dañ comme ni ko benn waaye waxe woon day mel ni comme ni mbuus yi mel <laughs> nga xam ne mbuus yi dafa bari ci mbedd mi daanaka léegi noonu la wax mu dañ mais nga xam ne tey ku mel ne maam Yaxlaal da doon jàngale ngir xeet jikko jooju nga xam ne comme nekk ci yow wax mu dañ kañaan soxor ñàkk mën a téye sa sa sa sa sa njaboot ñàkk mën a fonk say waaju te mm. fonk say waaju ku ko def da nga téye sa njaboot mm. nga xam ne loolu da koy dindi ci nit ki kon daal Arona mm. su ma dee wax mooy ñàkk nañu euh, bibliothèque boo xam ne vraiment kàggu mm-hmm. boo xam ne tey lépp loo xam ne euh, dem dem nga ba yaa ngi koy wër soo demee di ko fekk ci moom tey su fekkoon ne tey tegaan nga ay waxam di ko déglu da ngay da ngay wax naan kii kii moom moom ban genre la man dafa may yëb am na benn jour ma di ko tooñ ne ko maam daal man li ma jaaxal mooy. Mhm. dafa am sa euh, loo daan def fële bi nekkee ci rajo diisoo sa concept boobu daal moom jël naa xaw ma nag noo def ndax gis naa ne ku mel ne maam Yaxya Laalo nii. Mhm. xëy na pour nga am ku mel dana jafe. Mhm. mais il faut nag ñu jëm a am ay ñu jëm a créer ay nit ñoo xam ne dañuy jéem a góorlu di roy ci maam. wala di xool ni maam daan doxe ñuy roy ci moom ngir doxal. Euh, euh, ñu mel noonu nag bu nekkee cim réew bu ñu bàyyi seen i mbir rek wala seen i mbind rek ñu naax saay maa ngi fàttaliku ku mel ne Baye Fallou Cissé am na benn site bu mu yoroon boo xam ne mu ngi tudd Walafal. Mm-hmm. nga xam ne vraiment sama arsif yu bari yu archive yu bari mi ngi ak man. bu ñuy wax kànnaar loo yéen gis na nag kànnaar loo dëkk la boo xam ne dëkku cosaan la di dëkku diine. fii Modou yaa ngi koy gis mu toog ci mm-hmm. piliyaan bi mm-hmm. wala njoowaan gi mu amoon fa nag mm-hmm. daal di sa jolub solub tengaa dem yor lu mel ni téere xale yi toog wër ko ñeent juróomi xale yi ngi ni toog wër kon kon mooy li wax ju ne day tuggum ay seere waaw ci diggante ñaar ñoo xam ne dañu doon sëy xam naa suñuy wax jobbe du fi xaj ndax xam naa yéex gi nga yéex a. non euh, comme li nga noonu nga ko indi noonu. dafa dafa dafa xol comme mooy li ñu wax ne. Mm-hmm. xam naa kook moom mm-hmm. ngàccul géej. kon dañuy dañuy dañuy tànq mhm. tuuti rek. Mhm. li ci des ëllëg des koy àggale. waaye koor nag géej taxu koo jóg. waaw <laughs> mais daal lu lu wéetoo daal mooy li ma <laughs> li ma ko waxee mooy. jaaru na mhm. foofu comme comme waxtu bi mi ngi dem. waaw te xam naa yombul da nga. am am na benn euh, nu ñu ko waxatee fu ma gën a bëgg nga insisté fa. dafa doonoon ko ubbiku. tey soxorutoon. soxorutoon ci milieu média. gis nga loolu parce que gis ñi ne ci milieu média dañuy gis nga loolu nga wax noonu. Mhm. man am na lu ma ci mën a seere. xam nga ci tàmbali bi maa ngi koy wax nee naa bis dana ñëw dinañ ko gën a leeral maam Yaxi Laalo woo na ma benn jour ne ma maa ngi daaru Tanzil daal di mag booleeg xaritam bi ñu toogee fii sax woo naa ko mais nee na xolam fa mu toll. Mhm. moo tax xëy na du mën a woote. Mhm. ku ñuy wax Baye Basirou Seck. ndax moom ci boobam moom xam nga loolu ku rafet xol rek moo koy wax. man de am naa sama doom joo xam ne yor na rajo. te ku am kóllëre la tey ku ma déggal la lu ma ko wax lay def. te gisuma ba ma waaye wax ma ko ma ne ko maam kooku jërul muy def demande. Hmm. kër gi sa kër la. man lu ma xam ci aar yow la. te pour wan la ne nit ki comme li xew léegi nga xam ne micro xam nga micro dafa yaatu. Hmm. nga xam ne daanaka léegi nit ñi dañu da ci am ñoo xam ne ni buñ sañoon ñoom rek ñooy wax wala ñoom rek la ñuy dégg. Hmm. moom loolu de man xawma ko ci moom. ndax maa ngi fàttaliku benn jour benn groupe whatsapp bu ñu bokk ku yor whatsapp bu sama secrétaire dugal ci am mbir muy dem bay def témoignage ci man boo xam ne toog naa ay fan dugg ci groupe bi di dégluwaat dégg ko boo xam ne def na ko ci man te bu doon comme li nga xam ne tey Arona mi ngi rajo Zik FM man maa ngi fële kon naa fexe daal samay mbir rek dox. ñu dégg dégg ñu may dégg. du ma sañoon Arona day fay. Mm-hmm. jikko boobu man xawma ko ci moom ndax man daf ma daan woo di ma ñaax daf ma daan woo di ma dolli dara moo tax ma ne bokk na ci man li nga xam ne du ma ko fàtte ba ilaa di diini mooy daf ne ma woon na nga ñëw sama kër ñu waxtaan mm-hmm. mais ay jafe-jafe tax ak ay xat-xat yu ñu nekkoon wala ñàkk a toog parce que xam nga yàlla dogal na comme technicien demuma fa loolu comme ni li dal Arona moo ma dal foofu nga xam ne tey yóbbaale na xalaat yi mu ma waroon a wax te moom dañ daan waxtaan ci lu bëri mm-hmm. da moo daan tëb li gënoon a jafe mooy mag moo xam ne mm-hmm. sëñ bi li euh, liñ naan kóllëre daf ko am. Mm-hmm. ak yitte. Mm-hmm. mooy daan jékki-jékki jël téléphone am woote. Mm-hmm. woolat nag te bu lay woo man sax man daf ma daan woo mu yàgg ma ne ko maam te nga bàyyi ma woola. li confirmer loolu mooy. seex Sow Neex Sow ñu ngi koy nuyu. ndax bu siiwee tey ginnaaw yàlla ci milieu média Ibrahima Ndiaye maam yaxi laaloo nee na ma barki démboo Ndiaye ba mu mujjee woo matagul ñetti fan mu ne ma dama la nee na daf ma daf koo woo jotu ko Cheikh mooy wax ci guddi moom yëgutoon ne Ibrahima Ndiaye wàcc na ndax dafa génnoon man maa ko wax. Mhm. démb ci guddi la ko yëg. mu ne ma barki démb woo na ma. Mhm. ma tagul ñaari ñaari fan wala ñetti fan daal. Mhm. nee na ma ne su ma paree woo ko. xam nga dama doon julli xaw ma mu pare nag yi tey yi tey yi tey. waaw waaw. kon kon liy firndeel loolu loolu moom am na loolu ci la ma fekk. Hmm. ndax am na émission bu ñu daan def euh, diisoo. Hmm. Cheikh Sow moo ko sponsorisé woon te Cheikh Sow dafa yàgg man li ma neex ci Cheikh mooy ñun daan nañ ko tooñee sax pël bu dégg wolof. Hmm. am na yóbbulu suba bu ñu daan def boo xam ne maam daan nañ def émission boo xam ne fajar la man maa fa daan nekk bu ma fa nekkul ma job si la wala Pape Kane émission yooyu Cheikh Sow daf ci daan dugg nga xam ne kon nit tam da ngay fonk li nga doon. Mm-hmm. xëy na alpulaar la mais sénégalais la. Mm-hmm. comme ñun ay sénégalais lañ moom moo tax fexe dégg na la mu doon. Mm-hmm. ba pare ñëw fekk ñu ci liñ doon te est ce que sax gënuñu ko dégg. loolu nag dafa nekk lu am solo mais li may wax daal aaroon na mooy. ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ. ak ñi ñuy déglu xañ na déglu toog di déglu musique sax lu am solo lu am njariñ la. Mm. mais yenn saa yi nga déglu loo xam ne dafa am feneen fu mu lay jële ak mm. feneen fu mu lay yóbbu. dara ëpp ko solo. Oh. ndax fi mu toll nii tey cassette bi nga toog di ko déglu tey nga sa benn affaire comme ku mel ne tey maam Yaxi Laalo wala ku mel ne Baye Fallou Cissé wala ku mel ne Makhtar Seck Mboro mu lay jàngal jamono. Mm-hmm. te gis nga xam li gën a neex ci àdduna mooy nga xam jamono. Mm-hmm. soo xamee jamono ku la doo tëb tëb dóor mm-hmm. doo tëb tëb te ngay wax ak ñu xam jamono sooy wax ak ñu xam jamono dina tax am lu la naqari yow doo ko fàcce saasa comme ni ngay wax dama tàng dënn ko xam jamono du tàng dënn ko xam jamono du gaaw a gedd <laughs> waaw dëgg la de ndax ndax li li koy li koy suuxat mooy tey yow Arouna man de déglu woon naa maam yaxi laalo léeg nga gis koo xam ne yow mm-hmm. yow Modou Diop mm-hmm. la muy gedd bu ko geddoon ca ndoorte la mm-hmm. fam toll bay gedd du fa toll. dëgg la. te gis nga. doy waar laa la wax nag. lu léeg nga gis kuy gedd dara. la muy gedd bu ko geddoon ca ndorte la. Mm-hmm. fam toll du fa toll ba di ko gedd. dëgg la. lu euh, moo tax di wax ak mag <laughs> foofu dama ciy nuyu sama xarit Serigne Faye mm-hmm. moo tax di wax ak nit baax na mm-hmm. te yenn saa yi nga déglu ñi xam jamono comme ñi nga xam ne dañuy jàngale comme tey nga to nga am lu la naqari loolu nga ne xaama déglu sañ Moussa Ka hmm. am natt hmm. mu ne a ah, la yàlla jox xarit ba ci maqaama hmm. te mënu koo jëf natt lañ koy xayma nga ne ah. nga toogaa déglu mu ne te bala laa wóolu ba jox la mbir ya foog mu natt la ngaaw ci tànki mbër ya xam nga xam nga aroon ne loolu loolu <laughs> loolu te loolu ah. loolu li la koy li la koy mën a jox mooy ngay ngay déglu ñi nga xam ne xam nañ jamono. Mhm. te mooy ñi nga xam ne duñ la wax dañ la dugal ci ay mbëggeel. Mhm. rek xëy na mbëggeel sa baax na parce que ñun ñëpp a bëgg. Mhm. ku ci bëggul euh, lii bëgg nga sa soxna. kon di déglu ñi nga xam ne dañ lay dañ lay dugal maanaam dañ lay dugal ci jamono nga jàngaat jamono. xam ne kat. dañ lay orienté bu baax waaw dañ lay orienté. nga xam ne kat a ah, sama njaboot gi maa leen jur. wala maa leen yilif man sama baay yilifoon na ma. defoon na ci man. la mu waroon a def. dafa am benn jour may toog ak moo tax ji nga toog ak sa waajur dara gënu ko may toog ak sama waajur wu góor di waxtaana moom. mu ne ma moo dama lay dénk mbir ci jamono. mu ne ma gis nga yatt yi looy yóotu. jotoo ci ba mu la tax a découragé. looy yóotu mu xëppandoo sa kaw. ba mu la taxa a naagu ndax toq-toq moo gën yuréet. dañ fa ko wax. ngoog mu ne beneen bi itam mooy. képp koo xam ne yor nga soxna. Mhm. da nga xam ne sa yaay moo daan tooñ sa baay. kon adduna muñ muñ lañ fi santaane te mag ñu nii ak ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi jàngale parce que dañuy jàngale ci kàllaama gi nga xam ne wala xam kàllaama sax xam naa da nga ma corriger baatu arab baatu arab la mhm. dañuy jàngale ci kàddu gi nga xam ne ñun moom lañu nàmp mhm. dañoo jar di bàyyi xel nag mhm. ndax dana tax nit ki am dal dana tax nit ki yaru dana tax nit ki xam nu muy dundee ci àdduna tey it dana tax nit ki am jom te li ma gën a neex ci ci lépp yi nga xam ne maam daana ko lépp mooy yow daf lay jàngal jom Mm. te jom moo jafe fi mu toll nii te jom bu jafee jomb day euh, jomb dootu amati mm-hmm. mooy waral ah man de ñàkk naa fee day bu ma fa demee dinaa am xaalis te du ko liggéey ndax xëy na sama lo sama xel day dem ci mm-hmm. nafay jàmbur yi mm-hmm. foofu jomb amatu fa jomb amu fa daf ñu jàngal la nga xam ne tey man ah man de war na maa yor kër war na maa am oto waaye nag war na maa dimbale samay waajur waaye nag war na maa dimbale samay makk ak samay rak yi nga xam ne nii man judduwuma toll nii te jaaruma fenn. loolu yëpp soo demee ci léeb yi nga xam ne maam daana ko def ñun sax buñ nee léeb sax ñu bari dañ yaakaar dañ naan bukkeeg lëbëg dina xak kéwal te fekk demewul noonu moom dafa lay nettali ay histoire mais lépp lañ ko mën a kont et légende comme ni ko tubaab di waxee lañ ko mën a tudde mais du lépp am njàngale la ndax comme ni ma ko waxee lim lay jàngal mooy jom ak jom nga dem ba da ngay nekk nit ku am qualité loolu itam nag li ñu koy may mooy du ñu topp rek xëy na comme ni ñu koy waxee euh, topp see bi mhm. bañ a topp see bi parce que gis naa ne. see bi moom dee bi rek la lay jàng kon nag ñu bañ a topp ñun suñuy kàddu rek <laughs> fàtte auditeurs yi. voilà 33 976 21 43 képp koo xam ne am na lu mu bëgg a doo li ko ci lii El moo du Diop Thiat mu demagul màkka wax. mën naa daal di tàbbi foofu yi ci Zik FM 93 point 8 mbokk mi ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax ki ñu ngi lay nuyu. sang bi ñu ngi leen di siyaare waay. kooku kooku de sama baay la. <laughs> baay dëkk. Oh. ah rëcc na baay dëkk moom itam. Euh, maa ngi fàttaliku da daan woote ci émission yi. Hmm. vraiment comme ni ma ko waxee rek tey xam naa bul toon xew-xew bi am. Hmm. maam yaxi laalu dina am mbooloo mu bari xam naa Modou Makhtar Diop Benno FM amoon na yéene dugg lool Modou waaw waaye xam naa wax wee ñu xaw a xoj waaw mi ngi doon woote sama téléphone waaye fi mu ne xam naa bu duggee moom ndeysaan mhm. euh, tabarkàlla ñu ngi koy salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullah mhm. ngi leen di siyaare bu baax Baye Sayer Touré wala Mouhamadou Bari ndongol eh, Daaru Mouhamadou Bari Baye Mouhamadou Bari Mbacke Balla sëñ Modou yow nag sama auditeurs yi fajar yi yamoo daan yaa ngi may fàttali. yëpp laa nangu tey dee leen déglu tey nii ah, la. léegi man de si moom dama xaw a ko sax waaye wax dëgg yàlla moom. Mm-hmm. bala may wax ci loolu dara moom maa ngi siyaare bu baax tey ñaanal suñu maam ju baax jooju ci sàmburum jëlee. Mm-hmm. yàlla na ko àllaaxiram daqal àddunaam yàlla na aw naqaram yëpp yem ci adduna ñu fi bàyyi tam yàlla na sàmburum teg ci ñoom loxo boo ñu sut ko aw fan te dese yéen ñi nga xam ne yéen nga koy fàttali itam mm. di wax ci ñoom yu baax yooyu nga xam ne ñoom lañu daan defee mm. te wallaahi la lu baax rek lañu daan def ñoom mm. maam ma Ndiaye de képp ku ko ma sa xam wala nga daan dégg kàddoom musuloo dégg ci moom kàddu goo xam ne gi da nga ci am loola naqari saa boo déggee kàddoom rek kàddu gu neex lay doon bu nga xam ne gi da lay jàngal lu baax a baax a baax lu nga xam ne dana ci mën a jëriñu tey ak ëllëg yàlla na saa borom xare ko àjjana barke suñu Tuubaa Mbàkke ak yéen ñoo ñi nga xam ne itam nag yéen ñu koy fàttali ko yàlla na yàlla defal leen seen lu kawe seen jërëjëf waay jërëjëf ak ñëpp ñi nga xam ne fi ñi ngi déglu it rajo bi jërëjëf <laughs> alaaji comme comme comme lii doguma la waaw don dog naa sax ndax da ngaa dégg wolof te ma tam nga corrigé ma <laughs> comme li Baye Amadou Bari wax dafa mat a sóoraale hmm. mooy wax day des. Hmm. seede nettali du màggat. surtout jamono ji ñu toll. salaamaaleykum. aleykum salaam. ñoo ngi leen di siyaare bu baax. Hmm. tur we fooy wootee. Euh, Diouf Sampion la. aywa ni ngi lay déglu. waaw ñoo ngi leen di jaal sun maam jooju. jërëjëf waay. wax dëgg yàlla macha allah yàlla na ko bur yàlla yërëm xaare ko àjjana. ci barkeb Serigne Saliou. wax dëgg yàlla daanañ teewlu ci moom ay léeb yu bëree bëri. ay keek ak du mu naan ak boobu ngeen doon wax léegi moo di machine na wax dëgg yàlla dañ daan toog di ko teewlu bu baax a baax a baax mm-hmm, mm-hmm. waaw di ko ñaanal rek suñu borom yërëm ko xaaral ko àjjana amin amin amin di barkeb Serigne Saliou moom mboolem jullit bu mu fa fekk bu ko fa fekk rek mm-hmm. waaw yéen ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal taw feex Serigne bi saadata daara noor daara na barke Serigne Saliou jërë ngeen jëf mbokk na yëpp nu ngi woote di participer 33 976 21 43 Modou Makhtar Diop. Mhm. démb bi may wax ci groupe presse régional ma ne leen. Mhm. du dugal fi ku toll ni Ibrahima Ndiaye maam yaxi laalo ñëpp ne pat. Mhm. mën naa ñàkk. dëgg la. wala nga gis koo xam ne day dugal ab bët di jooy loolu mooy lan. <laughs> ku toll ni Ibrahima Ndiaye maam yaxi laalo dem. ak ni mu nekkee woon suñ kilifa ci liggéey bi. yàlla mayoon ko xam-xam. xam-xam bu rëy bu rëy bu rëy te mu wéer ne kenn ku nekk euh. ci ñun am na loo jëriñu ci moom wallaahi mu dugg ñëpp na pat kenn mënut a dugg ci moom seede moo tax ma dugg dal seen kaw koo xam ne gis nga biñ ko yàlla lay déglu seede yi bu nit faatootee nañuy seede ci moom lu baax waaye lan moo tax presse bi kenn ku nekk mënul seede jàpp diwoo baax jàpp nañ ne <laughs> xanaa nit bu lay xatal di la xatal di la xatal ba mu xëy wuy ji boromam xanaa mu war laa mën a féexal wallaahi la alaaj jaaji taal waxoon nag moo fi ne mhm. Sénégal ku faatu lañ xam ak ku dëkk fu sori. dëgg la. Mhm. ku faatoo ku dëkk fu sori. loolu de wér na. kese lañ xam. am na nag suñ yeneen i mag yu fi ne maam Sadda Dieng ci la bokk. maam Sadda waaw. waaw kuñ war di jël ci rajo yi muy wax. ay waay man nag Arona maa ngi sant yàlla baax. yàlla daf maa booleeg ñoom ñëpp maam mm. Sadda. Mm. sama maam ju baax la man maa ngi sant yàlla bu baax ba du ma bàyyi ba nit jóge fi. Mm-hmm. ma naan diw nangam. Mm-hmm. maam Sadda xay na mi ngi may déglu ku mel ne Baye euh, Cheikh Gay Rijaal. waaw concept bi ma keree. ku am solo jëlee ko ci maam Yaxi Laalo. woo naa sax maam wax ko ko. Baye Cheikh laa ko jox te ba pare nag topp ci di ko cotiser. salaamaaleykum. aleykum salaam. ñu ngi ziare bu baax baax. la yàlla nangu turee fooy wootee. alhamdulilah. ñu ngi rafetlu waxtaan bu baax baax. jërëjëf maanaam yokk di leen ñaanal ndax euh, tànk yi ngeen nekk. Mm-hmm. Euh, yéen nañ ci tànk Baye Fallou Cissé yéen nañ ci tànk Cheikh Ibrahima Ndiaye. Mm-hmm. ndax maanaam euh, da ngeen a war di wax. wallahi ndax boo xool moo Diop Thiat tey li mu fi développé fii. Mhm, mhm. kii maanaam warul nekk toog di seere rajoom ak a seere fee dafa war di wax. waaw même yow nu mu tuddati tur wi Arona. Mhm. Ah, yow itam maanaam soo fii di animé émission tamit am na solo trop mais yow itamit da ngaa war di wax. des fois kenn ci rajo bi jël sa place. invité la yow. su waxee su waxee dina jàngal ñu bari de. wallaahi parce que man xam naa waajuram. loolu loolu laa dégg ci yow. te mm-hmm. gëm naa ne li nekk ci yow moo nekk ci ma wala lu ko roon sax. Mm-hmm. wallaahi yàlla na leen yàlla taxaw rek. amiin te ngeen nii dimbali nga jëm ci jubaa ngeen wax. da mm-hmm. ngeen a war a wax. jërëjëf. <laughs> yàlla na leen yàlla taxaw rek jërëjëf jërëjëf. <laughs> c'est ça alaaji kii li mu wax nii. dafa am solo. xam nga dañ naan nit jël ko ba pare. <laughs> xam naa auditeurs yi day def ni ñu la ci bàyyi. wuyul asalaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk mi ci beeg fooy wootee. sëñ dëkk la sëñ dëkk sëñ Arouna. sëñ dëkk waaw. yow kat yaa ne na nit ñi dugg. waaw bisimilah. bisimilah Guèye yam rek la. waaw Cissé. jërëjëf. Diop na ngeen def. ñu ngi lay ziar Guèye jàmm rek. nii ngeen de def de la seen waajur yee doon def. walaay ndeysaan. di fàttaliku nit ñu baax ñi. Mm-hmm. di wax ci doomu aadama yi lu baax. Mm-hmm. Mm-hmm. ku mel ni Baye Fallou. waaw. ku mel ni Ibrahima Ndiaye maam yaxi laalo waaw mhm. Dame raxu mhm. Dame Fall Dame Fall raxu waaw Dame Fall waaw Baye Dame yal na leen ya sëñ Touba teel a teeru leen fa mu fañ ko bëggee mhm. amin amin ndax moo mooy li gën ci ñoom amin Baye Fallou nga yow mal xiyaam waaye ay xiiwala nga fay fekk yoo xam ne moo ko wax ci rajo yi ak journaux yi. Mhm. ñu di ko denc nit ku ko ci liir wala nga déglu wax ji na la leer ci leer yàlla ni wax jooju mi ngi mel ni rek sa tëddoo bu ay tiwoom ngay xelli ci robinet ba fële. Mhm. li ñu fi bàyyi ma nga leen di fekk yow mal xiyam. Mhm. yow nag aaru na. ñu ngi lay gën de gën a jaajji. jërëjëf. man boo laajee mat jom moomu. ñii ma wax. samay hmm. wëllëre lañu war dëgg la man kay xam naa si dara. <laughs> dëgg la wallaay ndeysaan. Baye Fallou daana ma ñoddi ba wang ma ci bopp. ndeysaan ndeysaan. <laughs> ma nangam ak nangam ak nangam. am na yu ma doon sol yoo xam ni moom. Mhm. damay ciy daje kenn wax ko lam ma sol rek waaye duma ko wax ci rajo yi. dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan ndeysaan kay jërëjëf. Baye Fallou ya fa mu nekk yàlla na ko gënal. Eh. fii mu nekk nag noonu. amiin amiin amiin. Dampal moomu itam. am amdu asuma Ibrahima Ndiaye maam Yaxya Laalo bé bégal nit ñi nu ñu leen war a bégale tey bégal gi yëpp génnul diiney lislaam mhm, mhm. kon nag ñoom ñi ngi leen sant te di leen ñaanal bu nu toll rek bu nu ñaanee bu nu jullee suba bu ñu ñaanalee sunuy waajur ñoom lañ cey teg ñi ngi ñi ngi leen di siyaare yéen ñëpp mhm. jërëjëf waay Arona nag yow moom war na noo gisee. incha allah dinaa la seet si <laughs> dinaa ànd ak Modou ñëw fa. waaw waaw Modou moom Modou moom dama dama dama koo denc ci sama poos. ndeysaan nit ku baax la. bëgg bëgg la bëgg la cee boole. ndeysaan est-ce que incha allah jërëjëf dama leen a denc fii ci sama poos moom. <laughs> allahu akbar waaw. sama xarit la de xaw nañoo yàgg lool nag wax dëgg yàlla. <laughs> waaw. waaw xaw nañoo yàgg. jërëjëf danaa fa ñëw. da ngeen di nit ñu baax rek. wallaay yow nit ku baax nga. yal na leen yàlla taxaw baax rek la ñuy dégg nga di ko wax doo yàqule. amiin yaa ilaahi. jërëgën jëf jërëjëf jërëjëf sëñ Modou. Mhm. nu ngi gërëm Baye Dëkk. Baye Dëkk téléphone bu tuuti le temps que ñuy dugal Modou Makhtar. Mhm, mhm. Modou. ñu ngi lay gërëm ci bàyyi gi xel. xaj na yéex gee ñëw rek ci émission bi mooy ndeysaan gàllankoor bi. dañ koy jéggulu bu baax. waaye noonu la ko yàlla tuddee. gis nga Modou ku mel ni maam Ibrahima njaay mii. Mhm. ku mel ni sëñ Fallou Cissé. Mhm. ku mel ni ku mel ni xoolal xam-xam ak dayoo bi leen yàlla dénkoon. Mhm. ak ni ñu tolloon ci Sénégal te mosoo leen a dégg ci naka sudul noonu. mosuñ jaay affaire kenn. xoolal Ibrahima Ndiaye maamee xilaalo foo ko wooyee mu wuyu la. saa boo ko wooyee dana la wuyu. nga gis koo xam ne ñaari fan rek la def ci métier média mhm. xamul dara émission ba mu yor sax mhm. su waxee ñaari baat yu jub ñetteel ba dëgg li mu wax dara baaxu ci Arona yaa ngi dégg bu ko sëñ dëkk wooyee mu koy tuutal Arona doguma la wala sax mu di ko coupé wala muy ciibatu sëñ Modou doguma la Arona doguma la li nga wax dafa am solo gis nga maa ngi fàttaliku maam yaxi laala bi mu ñëwee diisoo oh. mi ngi yor benn rajo ma jóg si la mi ngi may déglu maa ngi koy jaar léegi mi ngi doon woote xam naa dafa jéem ak oh. bi ma ñëwee ne ñu ne ma ma jëb si la ne ma ah, maam de moo ne fee ma ne ko maam man mu ne maam yaxelaal maa ngi ko fekk te mi ngi gaari otoom ci buntu rajo bi ak ni mu wooyee fale boppam sol benn caaya ma ne waaw maam ma ne eh, ma jób kii mooy maam yaxelaal mu ne ah maama nga nee de ma ne ah kon de loolu mooy loolu kon de am njàngale la moo tax baat bi nga wax léegi mm-hmm. xëy na ñu bari duñ comprendre mooy baatu ay directeur ak nangam bisu mel ne bisu maam yaxi laalo yeeg bis yu mel ne bis yeneen i kilifa yi mm-hmm. ñi fi jaar nii mm-hmm. dafa jar a tax nit ay baatu directeur ak xay na man nañ la koy wooyee mais pour man jërul mu lay neex xam nga lan mëpp solo xam kan mooy wax mooy ak amuk taalibe mhm. ndax lépp lu nit yóbbaale lu lépp lu fi nit yor lu dul taalibe tur wi njariñ li bëri njariñ li bëri tur mhm. am na solo amul solo waaye li ëpp solo mooy jëf ji mhm. bu ñu lay wooyee directeur la ñuy doyee directeur doy ca tur wi rek doyut Ibrahima maam yaxe laa la tudd Ibrahima rek doyutoon ci moom daa fexe ba jëf dëgg la ay baay mooy bàyyi Mouhamed Ndiaye ak yooyu yëpp jëriñu ko. amul njëriñ yooyu yëpp amul njëriñ te moom tiitaroowu ko woon. Hmm. te it na fi Fallou mooy bàyyi Arona tiitaroowu ko woon. Hmm. man nag doonte doon naa ko. ku dégg tiitaroo gi nag mooy xam-xam bi ko yàlla dénk. Hmm. ba pare itam. xam-xam bi ko yàlla dénk. waaye tiitaroo ma ne sama bàyyi daa siiw. déedéet. beneen bi ci des mooy. maa ngi koy wax sànq far yàlla dogal nga am looy indi. yàlla rek mooy yàlla te moo kéemaane. dëgg la. barki démb dañu am mbokk mu wàcc liggéey. Mhm. ñu noppi ma jaar ci bu sëñ Fallou Cissé keroog aljuma di ko ziyaar di ko ñaanal. Mhm. waaye bàmmeel ba maa ngi fekk ñax yi sax fa ba fees del. est mhm. keroog sama rongoñ dafa tuuru ma ne yàlla rek moo man xoolal sunu borom. Fallou Cissé mi woon ci kaw suuf. siiwoon lool. nga xam ne Sénégal bu doon 3 pour cent fi ne ñaar ñi xam nañ ko. tey boo ñëwee ci bàmmeel yi doo ko xàmmee. la maam Abdou waxoon bàmmeelu Fallou Cissé taxaw naa ab diir mënuma koo gis ndax ñax mi. Mhm. Mhm. te bu maam yaxi laaloog bu keneen ba ci ñun fa la ñuy mujj. Mhm. ay waaye tey ñoo rafetal. tey maslaa te bàyyi boddi kon bi ak yàqalante bi ak yàqalante bi nen ba loolu lool baaxul. te nag mbër mu ye maanaam. Euh, nuñ ko jëwaatee sax pexem yàlla moo gën pexem nit na xam. waaw ba yàllay fexe yàqkat yeggu fi. ok mm-hmm. mu ngoog. am na kok. Mm-hmm. saa boo ko bëggee yàqal. Mm-hmm. mën naa jeng bay waaja. daanu waaye du mas a yegg suuf. te nit ñaa ngi ci biir nit ñi gaañaa ngi ci biir gaañi. fii toujours dama fi moo Modou Makhtar Diop nit ku baax la. dëgg la tey daf ma woo ci suba. daanaka moo ma yee ci lal. dëgg di rafetlu kàddu yu ma wax ca groupe ba. est-ce que barki démb ci ngénteel Babacar Samb yi ñu ma dékkee micro. Mm-hmm. foofu laa gën a insister. dañu mm-hmm. gën a bennoo ñun ñu ne ci milieu média. Mm-hmm. ay waaye te ñoo bàyyi iñaanante beeg yàqalante bi. maa ngi wat ci yàlla ne bis. nit dem na ci barab. am kilifa gu muy waxal kilifa gi ne ko numéro aaro na laa soxla. mu ne ko yoruma ko ndax maa ngi moom duñu wax. te fu ma ko fekk nuyu ko. te xam naa ko. loolu loolu moom. loolu moom te fu ma fekk day mel ni ku may siiñ ba mel ni ku may bëgg lekk. loolu moom Arona du émission bi waaye ñun denc nañ ci saako. lam ko wax mooy maak Arona duñ wax. <laughs> te maa ngi wat ci yàlla fu ma ko fekk nuyu ko. Arona Arona xoolal tëjal foofu loolu moom. Mhm. émission bi loolu taxu koo jóg waaye ñun denc nañ ci ay livre yooyu dama ci dugg yooyu dama ci xuus denc ci ay livre yoo xam ne tey moo mooy nañ bàyyi soxorante bi rek kon Modou Matar su fekkee mën na dugg benn minute ñu tëj ndax daanaka ñetti minute moo nu dese Modou mhm. waaw xam naa li ñu dese bariwul. waaw dugg si na sëñ Modou Maxtaar. Hmm. waaw moom nag mi ngi dagg rek. waaw xam naa xaw ma dafa takk écouteur xaw ma maa ngi koy woo ay yoon. sëñ Modou kon waaw xam li ñu dese bariwul daanaka ñetti minutes moo ñu dese waaye tàggatoo bi mi ngi. Mhm. dañ la ciy sant. waaw kon nag sama kër sant ci kër gi nga xam ne. moom la ñu fekk si boroom muy euh, suñu nijaay Ablaye Fam. Mhm. di sant itam ñi ñu doon déglu. xëy na wax bu baree asaka mënu cee ñàkk waaye lu luñ fi juum itam ñu ngi ñaan rek ñi ñuy déglu ñu jéggal ñu ko li ñu bëggoon a wax bari na boo gisee ñun yàlla dimbale ñu ci rajo ba du ñu wax ba ngàbb kayit lu ci bari dañ koy inspiré ci suñu maam ñooñu ak suñu mag ñooñu fi jaaroon tey may ñaan ndaw ñi bu ñu daagu bu ñu naagu te bu ñu bew bu ñu rëy itam tabaarakallah jërëjëf sëñ sëñ Modou ñu jël Modou Makhtar rek benn minute balaa ñuy tàggatu sëñ Modou Makhtar salaamaaleykum waaleykum fàttali ne yaa ngi nekk ci rajo Benno FM waaw su ko defee rek xam naa ne ñaari minute ñu waaye li ma bëggoon wax lépp rek sëñ Modou Thiat mu ngi toog. Mhm. na ko ak yow mu nga xam ne yàlla dafa émission bi. Mhm. ak bopp yi nga xam ne ñoo woote. xanaa rek eh, buñ ko tënkee mooy sant gërëm la ñaanal la yàlla may le kàttan ak man ak lu yëgg ak yëggale. Mhm. ndax xam nañ ne eh, yoon wi nga fi la sa wajur bu baax a xool. yal na la yàlla may kàttan ak man ak lu ak yëggale rek loolu rek lañ ci duggee waxtaan am na solo lool noonu lu ñuy wax gëm la. ma sëñ Arouna daa nekk ba ci groupe bi damaa dama ko yàgg yàgg a bàyyi wax te am nañu ci biir benn rek. Mhm. àgg na kon yàlla na yàlla sàmm taxawul yàlla dafa ñu bégal topp xam naa incha allah beneen lool yàlla yàlla fay la yow Fallou Saaw kon ñu ngi lay nuyu Youssou Kane ñu ngi leen di jaajëfal sëñ Modou Diop Thiat. kon xanaa dañuy dig daje si biir rek di la sant. Mhm. di la ñaanal yokkute ndax comme li nga ko waxee ñun yàlla dogal na loolu dalunu ndax rajo yëpp bu ñu dem dugg mm-hmm. amuñu xolu kañaan waaw yow moom nit ku baax ñu ngi sant di la sant itam yow itam nit ku nga ndax gis naa toujours sa émission ni nga koy doxale koo xam ne sama wëyu da daan def émission di tudd sa tur di la nuyu maa ngi maa ngi émission yi fii jërëjëf Modou Diop Thiat RFM jërëjëf maa ngi lay sant yow di sant sa technicien bi ak waa kër gi yëpp di nuyu mbooleem ñi nga xam ne nii ñoo ñuy déglu ñëpp di jéggulu rek bu baax jëf mi nga kon jërëjëf Modou yow it ci xat-xat yi xam nañ ne xat-xat bari na nga bàyyi sa yitte bàyyi sa liggéey man ñoo wuy si ngir jëmmi sëñ Ibrahima Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm liñ koy waxtaane lépp baax na waaye buñ fàttali di ko ñaanal mhm. kon ku ko mën a jàngal fukki lixlaas ak benn ginnaaw faatiha nga yéene ko ko yéene ko bépp jullit su ko defee ni nga koy sàkku di ko sàkku di ko ngeen ñaanal ko ko ñu ñaanal ko ko incha allah yàlla yërëm ko te jéggal ko waaw jullit moom ñaanal ko njërmande yàlla ak njéggal lu am solo la waaw lu mu baax baax baax ak lu mu baaxoon baax su ko defee nag ñu bàyyi ci xel mhm. waaw ñim ñu xam la alaaj taal sisem cana ba waxoon dem baax na ba fi lu baaxit baax na waaye ba fi ñu baax a ko ëpp solo kon ñu ñim fi bàyyi nañ xam ne seen wayjur ku ku baax la woon nañ xam ne seen wayjur musut tànqam lu kenn musut tuutal kenn te am na dayoo bu ko yàlla dénkoon waaye musul yëg boppam ci micro bi mu tiim mi ngi mi ngi yëg ñi muy waxal di yëg boroomam kon nag képp kum jur nga bokk ci moom ba ci man mii mu ngi noonu kon maam Sada Dieng ñu ngi koy nuyu. di ko jaajëfal ah, ma kii looy tàggoo. waaw di sant euh, tey moom moo dooma jànn xeloo ndax ndeysaan tey daa ñëw dominé ma <laughs> waaw ñu ngi santaat sëñ Mourou ndeysaan sëñ Mourou Diop euh, di waaju bu baax di andi rafetlu ay kàddoom wax dëgg yàlla di santaat tamit euh, suñu technicien bi di santaat tamit sëñ Aaroon wax dëgg yàlla kàddu yi tamit lépp am na solo tamit maam ñett moom desewut loolu li si àdduna mm-hmm. mu jógee fi tamit nga ñaanal ko seede suñu seede yu rafet kon ñi ngi koy ñaanal jëm dàqal fu ñu jógee mhm. ñu ngi rafetlu tamit maam képp kuy bàyyi xel euh, rajo bi rek ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax mhm. jërë ngeen jëf jërëjëf kon mi ngoog yàlla na yàlla def jàmm Samba Sarr Kazu Rajab boisson beeg café gi am na solo ñu ngi lay gërëm mhm. teraanga yëpp jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Modou Diop Thiat ñu ngi lay sant di la gërëm euh, di gërëm auditeurs yi ñu yegsi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi yegsiwul ñu ngi leen di jéggalu ki nga xam ne moom mooy Abdou mi nekkoon ci wàllum technique bi ci kanam tuuti ñu ni neen day daara Diop mbokk yi lu ci jub nu sante ko yàlla lu ci dëng nañ ñu ko jéggal rédivision bi